te leen jàmm ci li gën a fës ci yëglekaay yi ñu commencé kook l'exécutif yéenekaay mi des waat ci coow li nekk ci diwaanu Bambilor yéenekaay bi na askan ba de ba léegi si bàyyiwuñ mu sedd laa la wax démb rassemblement bu rëy la def ci seen digg dëkk ba woo presse bi pour waxtaan ak ñoom ndax nee nañu duñu seetaan laa la wax ñuy foqati seen suuf luy toll ñaar fukki hectare ak benn ñu koy récupérer ñoom ñu toog na yàgg yasar ñoom population si ko bëgg a cëqat yéenekaay bi en tout cas démb coow lu bëri woon na ca Bambilor de ñoom population bi nag ñu ngi exiger ci na mu gën a gaawee ñu libéré seen doom yi nga xamante ni jàpp nañ leen dugal ci biir kaso bi gannaaw ay manifestation yu métti yu fa amoon ak ñoom xale yooyu ak seeni wéyju ñoo bokk benn objectif la ñuy xeex mooy ñu bàyyee leen seen suuf tey sàkku nag ci état bu Sénégal ñu def sax nag audit ci suufuk Bambilor gi bés bu ñu ko defee danañ déggaat ay kilifa yu ñu xam ci biir dëkk bi yuy noot Bambilor pour mën a jot ci seen suuf si lii duñu ko seetaan tey duñu ko seetaan ëllëg bés bi la journée beneen problème bu am kay bi université yi nga xamante ni jamono ji dañ ko tëj benn étudiant jàngul depuis mois de juin lii nag étudiants yi dañ cee bëgg sonn moo tax ni ki démb nag dañoo yëngu-yëngal génnee ay lycée laa la wax ci biir Dakar ñoom étudiants yi li sàkku nag moo di ñu ubbi waat université yi ci na mu gën a gaawee rawatina bu Cheikh Anta de Dakar cours yi ñu tàmbaliwaat ko en tout moo di daw fitna dong nag moo tax autorités yi jamono ji nangu wu

état bi nga xam ne moo teewaloon état bu Sénégal ca procès bu Ziguinchor ba ni démb nag moom agence judiciaire de l' état bi avion la jël dem Ziguinchor déposé recours am ca tribunal ba fekk jamono jooju musiba mbaa bokk ma nag di bëgg a dal Ousmane Sonko ndax bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi démb dafa def malaise et pourtant ni barki démb dong nag moom Ousmane Sonko mu ngi doon sàkk ñu delloowaat ko ca prison bu Sébikotane waaye bu ñu sukkandikoo bi ne mbiru Ousmane Sonko nag dafa gën a jéggi dayoo bu sa xel dal ci Ousmane Sonko dafa fekk na xamoo ci état mu nekk démb démb ci ngoon laa wax médecin yi nekk ci hôpital ba ñëpp bàyyi seen yitte entouré Ousmane Sonko mi nga xam ne mu ngi doon exiger rek ñu jëlee ko ci hôpital ba yóbbu ko ca prison bu Sébikotane waaye état Sénégal dañoo lànk de lànk gi sax nag dafa mujjee faf ñoom ñu am dëgg ndax avant ñuy delloo Ousmane Sonko ca prison ba dafa faf daanu nag avant muy daanu malaise de Ousmane Sonko wóoratul laa la wax autorité yi nga xam ne ñoo koy fàcc moo tax mu bëggoon a dellu ca prison ba grève de la faim bi nga xamante ni def ci soutenir yenn ci ay jigéen yu nekk en grève de la faim ñoom tam moo ko yóbbee mu daal di am malaise ay avocat nag di ñaawlu loolu tekk tekkaaralu kilifa diine yi suñu kilifa aada yi ba ci communauté internationale bi dañ na tekk tekkaaral ci mbiru Ousmane Sonko lan moo waral li ni mel en tout cas beneen avocat am bii nekk tiital na ay njabootam te gis nga xëccoo gii nekk ci diggante autorité yi ak avocat Ousmane Sonko yii ki ci nar a nag moo di ndey bi liggi ci boppam ndax jamono ji laa wax bakkanam moo nekk en jeu donte nag ci côté yépp Ousmane Sonko mu ngi xeex ay avocat am rek niki démb saisir nañu Sénat ngir ñu wax ci direction générale des élections muy lànk ne du joxe nag fiche de parrainage Ousmane Sonko yi source aane niki suba ci àllarba ji bu nu moytul topp yoon suba daal ci àllarba ji Sénat boo moytuwul mu daal ci réagir fekk jamono jooju candidat wu benn bokk yaakaar bii di Amadou Ba démb dégg na dëgg ndax daf doon visite nag famille maam Cheikh Mbaye waaye porte ba jël na juróom-ñaari dëggam nag teg ko ci taabal bi xamal Amadou Ba mii nekkoon nag dëkk baa ngi dëgër këcc dund gi cher na lool te yéen yéen ci waroon a solution père de famille nag moom ci jooy la dëkk ndax amul dara dara loo xamante ne gi dana yomb waaye condition yi war a tax dund gi jàkk da ngeen koo tegul sax ci table bi faf bu fekkoon ne condition yëpp daj na tey jii ndaw ñi laa wax du jël gaal gi yaakaar gu tas dong nag moo tax jamono ji ñu jël seen bakkante ko tay la ci géej gi porte-parole famille maam Cheikh Mbaye bi yemul foofu de moom Serigne Ibrahima Mbaye xamal na Amadou Ba mii ne ko nag réew mi dañoo gis kumba mu am ndey ak kumba mu amul ndey rawatina ci wàllu justice te yaakaaroon sax defatu ko ndax juróom-ñaari dëgg yi nga xamante ni Serigne Ibrahima Mbaye wax na ko Amadou Ba même Abdoulaye Mbaye père mi nga xamante ni dafa yëngatu lool démb def na tekk tekkaaral mu mel na ñoom ñëpp dañ leen mujjee sotti laa la wax ndox mu sedd levé yéeni moom ubbi xët bu yaatu di ñu gën a xamle mooy Alioune Mamadou Dia ani parti pur duy la def grand théâtre ba mu fees dell en tout mu di Alioune Mamadou Dia moom ci week-end Moustapha Sy tànn ko ci xam-xam ak solution yi mu bëgg a indil Sénégal yéenekaay wi ne boroom loxoy set la Serigne Moustapha Sy tànn ci ay priorité nag bokk na ci mbay mi dund gu cher gi jafe-jafe jàng bi secteur yu nërmeelu yépp nag mu daat koy jubbanti l'observateur moom taxaw seetlu ci gouvernement bu Sénégal gi nga xamante ni jamono ji président Macky Sall daf leen a aaye génn réew mi de ñoom ministre yi ñoom ñëpp la ñu mujjee confine laa la wax ci biir réew mi n li président Macky Sall bëgg moo di ñu wàcce sur le terrain mottali yéen ci ay président Macky Sall mën a am bilan bu complet ci projet yi bi dugg ba mu absenté ci face to face bi génn diggante mag Modou Lo ba léegi si amul benn explication bu mu teg ci table bi li koy yor nag mooy boo moytul ñu suspendre ko mu toog lu toll juróom-benni weer jàpp juróomi at yoo xamante ni boo moytul du ko bëree <laughs> juróomi at day ku ko toog moom te bëree bu yóbboo rek nga dindi sa ngemb mbokk yi continué leen di abonné ka bàyyi xel seen seen YouTube bi di Mourchid TV tey gën a bàyyi bàyyi xel télévision bi ngir ñu gën a mën a mottali seen yaakaar yéen nag jàmm ba suba ak jàmm incha allah